dalli nag jàmm ci tas info aboneel ngir dara bañ a di laal dalli nag jàmm seen ànd ak seen seen youtube tas info li fi ruuse ci ay xabaar jëm ci wàllum tàggat yaram mu di résultat yi match yi dañ koy dooree que fële ca Arsenal ak ñi nga xam te ñoo di waa Barcelona Arsenal daal di dóor lu mat juróomi bal ci ñett ñi di Barcelona leneen ba tey yi ci ay résultat moo di ñii di waa Real Madrid ñoom ñu door deux buts à zéro fa ñi nga xam te ñoo di waa Manchester United ci première but ba nag ki nga xam te moo ko dugal moo di Jude Bellingham leneen ba tey yii moo di Kylian Mbappé moom nga xamante ne jamono ji bañati na ci offre bi nga xamante ne ñii di waa Arabie Saoudi ña ngi ko koy laaj ba léegi ni moom bañ na lank kandaare ci ni kat du dem foofu waaye ñu bëri dañoo njort ni lay wala mbir moomu daal moo di ni moom mii di Kylian Mbappé ma ngi waxtaan ak ñi nga xam dañoo di waa Real Mad waa Real Madrid ngir mu man fa daal di dem leneen loo xamante ne lu jommal ni ñi la mu di ab triplé boo xamante ne ci 45 minutes la ko amal moom mii di Richarlison ci match bi nga xam te ne moo doon am bër ki démb contre Lyon City en amical ci amical daal ca la dugal ñetti bi yooyu ci li nga xam te ne moo di ci euh, benn euh, ci 45 minutes ñi nga xam ne ñoo di waa Manchester United City daal dinañ koy dóoraat ñi nga xam ne ñoo di waa bar euh, Bayern Munich bu saajo maane ñett ñaari bal ci benn ñoom ñi ñooñ ki nga xam ne moo di Erland daal di leen koy jëlaat ci kaw ñi nga xam ne ñoo di waa eh, Barcelone ñii di waa FC Barça ba tey jii génn nañ ak seen maillot bu bees bi nga xam te ne daal di leen koy fésal eh, fésalaat ko ci ay nataal yoo xam te ne fésalaat nañ ni maillot yi moo nar a nekk seen maillot ci saison yi xam te ne ca la ñu jëm. ba tey jii ci wàllum eh, tàggat yaram mën nañoo gisaat ñeneen ñoo xamante ne ñi ngi kii di. Kylian Mbappé ba léegi nii bañaat na àndam ak ñi nga xam dañoo di waa ñii di euh, Arabie Saoudi waaye nag match Real Madrid ak ñi nga xam ñoo di waa AS Milan ñii di Real ñoo ko mujjee daal di jël ñetti bala ci ñaar bloc d'information de yooyu lépp loo xam ne dina ci tàkk yaram dinañ ci ci kanam yooyu leen di ànd ak ñun jàngeen def